ambassadeur bi consul général vice consul à consul général ambassadeur bi consul bi yep. a parce que na élection yi vote amu fi voilà je ngeen demee gis nga ko ñu ngi nii di ko yuuxoo élection amu fi annulé leen ñëpp parce que dañoo bëgg a sàcc ñu ngi nii ñu di leen yuuxoo voilà gis ngeen ko voilà daw mu ngoog gis ngeen ko mu ngoog voilà lii moo fi lii moo fi waaw man la Ablaye Pène lii moo fi am waaw ngoog lii moo fi am yuuxoo nañu ndaw nañ